li ñu tax a taxaw fii nag tey ku mu doon yow di yow te lu ne lu ko yëngal la ko yëngal la ko ëpp doole tey monsieur le maire moo ñu woo muy sëñ Abdou Mbacké Ndaw mu def tey mooy di séddale boole ci bàjjanu gox yi parce que bàjjanu gox depuis au temps de maître Abdoulaye Wade ba fii ñu toll tey amul lenn lu mës nit mës a def fii ci departement bi laa la wax ba yëkkati ci un sou mu jëm ci bàjjanu gox te pourtant bàjjanu gox day ay jàmbaar lañu dañuy jiyaat xam nga blouse blanche kër docteur yi dañoo prêter serment dañoo waat mais ñun tam dañuy jiyaat parce que jigéen joo xam ne jii da ngaa sa borom kër wàcc sa njaboot di dem ci say askan wi di waxtaan ak ñoom. pour lu leen di aar pour lu leen di jëriñ pour lu leen di jubale yaakaar naa ne jiyaat foofu la mën a yem te yaakaaruñ ci dërëm lu dul payug yàlla waaye yàlla nag ku ma fay nga rus ndax ku ma fay rek di nga wéet ne ah man de defe naa suñ borom defaluñ ko woon lii bon bu leen xaddi bu leen tayyi bu leen daj ndax li indi lii tey dina indi leneen li ñu meer jox mooy jox nañu 60 sacs de riz de 25 kilos jox nañu Euh, cent deux cent masques jox nañu place ci marché Mbàkke bii ci place boobu moo ñuy jox kiosque bañ fay teg ci place boobu mooy jënd machine wol ba nga xam ne moom la fa jigéen ñi di teg ginnaaw bu ñu ca jëlee juróom wala ñetti jigéen yóbbu leen Dakar ci formation professionnelle ñu former leen pour ñu mën a gérer seen bopp yor seen gestion bopp pour autonomisation de la femme bi président de la République bëgg jigéen ñi maanaam autonomisation dafa bëgg jigéen ju ne mën a dem ak boppam dootul dépendre ci kenn dootuñu nekk dépendante de personne li ñuy ñaan daal mooy Covid bi yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba jóge si bi feebar bi di commencé di commencé fii lépp loo xam ne matukaay la matukaay lay pour luy aar feebar bi jox nañu ko avant lii boobaak léegi mën na ñaari weer bërki démb mu woowaat ñu delliwaat ñu lépp loo xam ne lii luy tax feebar bi dem la liñ ci tudd mooy li jox ci ay paan que mën na fukki paan li ñuy jox ci ay raxasu mën na fukk ci paan yi saabu yi bëri na thermoplace yi jox nañu ci quatre pour garage yii euh, nga xam ne ñooy interurbain yi loolu nag li muy def sasti bi mu ci def daal rafet na rafet goo xam ne gii mënee su ko wax parce que lim ci def dafa bëri trop trop trop trop ndax dafa dul benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon tey la tey jii mu jox ñu cent sac de riz jox nañu ko pour ñu jégbal ko interurbain bi bokkul ak taxi yi bokkul ak Mbàkke Tuubaa yi kenn ku ci nekk da am man maa wax ci seen tur. kon li ñu mën a def mooy sant ko ñaanal ko yàlla guddal aw fanam te wéral ko ci barke Sëriñ Tuubaa xam ne nag lii moom rek lañu ñu mën a séentu ci moom ndax nit koo xam ne kii tey sa maam da doon liggéey di indil nit ñu ñuy lekk. bu la fi yàlla tegee nit ñi xiif su la yàlla mayee loo leen jox da nga leen ko jox te def na ko bàyyiwul kenn bàyyiwul chauffeur bàyyiwul transporteur bàyyiwul borom saret bàyyiwul taximan bàyyiwul mbakke Tuuba bàyyiwul kenn interurbain ñëpp euh, euh, ki Abdou Mbàkke Ndaw taral na leen fii tey jii ñii am nañu ay quatre-vingts ñii am soixante ñii am cent ak lépp loo xam ne lii nag matériel la boo ànd ak boo xam ne bii day dàq feebar bii nga xam ne moom la ñu la ñuy indi magasin la ci duy ba mu fees mu woo ñu barki démb ba ñëwee mu jox ñu ko bëri na trop ci liñ mën a liñ mën a wax daal xam naa ne daal fii moom dëkk bi moom daj na ci mbooleem gaara taxi yi fi nekk ak gaara su gaara su Mbàkke Tuubaa yi ak gaara si interurbain yëpp daal fu ci ne daj na ak loo xam ne lii teraanga yoo xam ne feebar bi moo tax mu jox ñu ko